L'atelier, bi un projet de xamantene association des femmes juristes du Sénégal Nous, ko féminisons les femmes et les jeunes euh, politisons les femmes et les jeunes Manam, nañu nous ba jigéen ñi ak ndaw ñi gën a dugal loxo ci li defar penc L'ol Nak nag moo ba ñu ñëw fi tëngee tay di tàggat ñi nga xamné ñom ñoom élu élus locaux yi manam ñi nga xam les lañ Nous si bopp bo moomee bokk momé li ñi wax collectivité locale euh, ci liñ leen doon na si naka collectivité locale ci gestion Manam yorinu collectivité locale waaye itam budget li ñuy wax budget budget bi mooy programme yi ñuy def koppar yi nga xam ne moom la ñuy am ñoom naka lañ koy tëralee naka lañ koy defee naka lañ koy doxalee ba mu am njeexital ci askan bi waaye tàggat nañ leen tam ci communication digitale bu ñu wax communication digitale nag mooy li xew tey waaye tàggat nañ leen tam si li ñuy tuddee leadership maanaam naka lañuy ñuy doolelee seen taxawaay ak seen xerañte ci wàllu penc mi nga xamante ne ci la ñuy yëngatu loolu nag li ñu ciy séentu mooy ñoom liñ leen jàngal ñu mën ko jëfee jëfee ko nag mooy lan mooy ñoom ñu bari dañ leen a tabb bees biñ ñëwee fekkoon nañ ay budget ñu voté ko ba pare xamuñu woon sax budget bi nu mu demee xamee dañuy dégg budget rek donc gunge boobu ñu leen gunge dina tax ba ñoom ñu gën a xam suba bu ñu waree voté ci budget lan mooy priorité ci seen gox ak naka la ñuy boolee seen waa gox ci li nga xam ne moom mooy euh, voté budget bi ak voté programme bi loolu nag la ñuy tuddee ñun budget participatif ak programme participatif te loolu dafa bokk léegi ci outil de gouvernance yi nga xam ne moom la ñu tëral euh, leneen li nga xam ne mën nañ ko ci dolli mooy wàllu yokku leen doole yokku leen xam-xam ba li ñuy tuddee leadership maanaam seen taxawaay ñu gën ko dooleel seen taxawaay ñu gën ko ñoŋal seen taxawaay ñu gën ko ñemeel ba fi nga xam ne fa la ñu bëgg a àggale seen gox ak seen gox goxaat ñu mën faa àgg.